bismil ilaahi ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaama yàlla auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzu billahi bismillahi walillah mbokk internet yi nga xamante ni yéen a baaxoo siiw seen émission bi nga xam ne lépp dafa aju ci jotaayu xam-xam mbégte lañu am tey dellu si fii ñëw fii seet si fi suñu sànni suñu kilifa suñu xarit koo xam ne nee naa àdduna wërngal këpp ñëpp xam na ko ba tax na duñ ko présenté présenté bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom ndax buñ ko bu ku dégg tur bi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara benn adresse la benn matt la moom lañuy ñu seetee bëgg a waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam li ñuy def rek mooy dañu koy ko waaye dalal ko ci biir jotaay bi door a xam ñu ngi leen nuyu di la siyaar di la dalal xam-xam bi nga xamante dañoo taataan si tey ci li xam ne suñu borom baaxee na la ko ngir jagleelaat ko askanu Sénégal rawatina suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk fenn fu nekk ci biir réew euh, maa ngi lay bu baax ci sa biir nuyoo ngi ci jaarale noonu di nuyu sénégalais yëpp di nuyu waa adduna bi yëpp wax dëgg yàlla di tàmbalee suñu nuyoo. ci mun Muntaxa Mbàkke di xalif général des Mourides di suñu bunt ci Sëriñ Tuubaa jaare ko noonu jaar ci suñu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall di suñu xalifa di suñu sëriñ di suñu seex di suñu sang di suñu lépp muy sëriñ Cheikh Bintu Fall bu sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar di jaaraale njabootu sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar bi yëpp ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi yëpp wax dëgg yàlla maa ngi saare ñëpp kulluhum képp ki nga xamante ni rek yaa ngi safoo mm-hmm. njabootu maam Cheikh Ibra rek maa ngi leen nuyu di la saare bu baax ak ñu ko bokkal maa ngi leen di saare bu baax ci turu njabootu Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar yëpp ci turu Serigne Cheikh Bintou Fall mu Serigne Modou Abdoulaye Fall maa ngi koy maa ngi leen di saare bu baax a baax a baax kon nag di wax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lam ñëw boobu nag moom dafa mel ne Sénégalais yi sax dañ may tënk faax naan ma sëñ Baara yow moom tàmbali ci sëñ bi ak yam ci sëñ bi rek waaw man aw ma ku dul Serigne Touba aw ma ku dul Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag tàmbali ci Serigne Touba yam ci maam Cheikh Fall mm-hmm. ndax ku xool sama jëmm xam ma rek mm-hmm. xam ni man bëgguma doon tubaab mm-hmm. te bëgguma doon naar ay senegal lay waxal te yàlla itam du naar ñun Baye Fall lañ waaw ñun Baye rek la ñu bëgg doon taalibe Serigne Touba rek la ñu bëgg doon ba ku ñu jàkk suñu jëm xam ñu xool ñu rek mhm. da ngay yëg Serigne Touba wala nga yëg maam Cheikh Rafa ci suñu jëm kon mu loolu rek lañu ñu bëgg dox mhm. kon tàmbali ci maam yam mhm. ci maam bisimilah jërëjëf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Fall desaan ci kàddu yu am solo bi waaye ci nuyoo am solo yooyu wax dëgg yàlla ñu ñu fettaliwaat kóllëre di fettaliwaat wax dëgg yàlla cofeel gi dox suñu digganteeg yow waaye cofeel nga xam ne dox na sa digganteeg askanu Sénégal mm-hmm. ndax nee naa koo xamante ni li tax ñu ñëw fi tey mm-hmm. koo xam ne bi ñu ko xamee ak tey Euh, mi ngi bëgg a weesu mi ngi bëgg a romb ñaar fukki at. Mhm. fanu ko xamee woon. ba tey jii ku ñëw fekk la fi. Mhm. kon loolee defe naa ne naa bu fekkente dañuy wax ni mhm. euh, na kon moo tax ñu am mbégte dellusiwaat fi tey waaye sëñ bi. dafa am xew-xew bu xew ci jamono te nit mi ngi ci mu ngi ci móolu nit nit mi ngi ci mere nit mhm. nit a ngi ci sikkal doomu aadama tax mhm. xamuñu lu ko waral mhm. tubaab di ko wax mauvaise haleine olof di ko wax naan gémmiñ gu am nget ma bëggoon sëñ bi nga wax ñu lan mooy sabab loolu yan conséquence ñoo ci nekk ak tey jii sëñ Lamine Bara ban solution la ci am ndax gis naa àdduna di daw di la ci ut si te di leen ci dimbali jërëjëf jërëjëf sëñ Sam ah kon di wax rek ni sant naa yàlla julli ci yonent bu baax ba nga demee ba xam ma xàmmee ma ci ci milieu bi mm-hmm. loolu daal day naa sant suñu borom ndax nekk ci milieu ba ñu xam la xàmme la fa mm-hmm. day na sant yàlla rawatina nag ba nga wax ni arrêt du bales gii yàgg gi ñu fi def ak at yi fi def mm-hmm. loolu moom Sénégal xam nañ ko ku xam Serigne Lamine Bara Fall xam ko arrêt du balees wax dëgg yàlla yàgg nañ fi lool at yu bari lool te mosuñoo changé su mosuñoo toxu te suñu numéro téléphone ba ñu njëkk mos génn ci télé waaw boobu ba léegi numéro boobu changé wut moom mooy dox ba nii nii nii nii mhm. kon loolu dañ koy sante suñu borom rek te nit ñi moom fépp foo nekk yàgg fa rek mhm. yaakaar naa am na lu tax ndax li nga wax ci crédibilité mhm. ci wàllu efficacité et tout waaw fii ci Aïda Dougalass moom ñun xam nañu fi bu baax a baax ci liggéey bi wax nga nag wax ju am solo ci wàllu feebar bu ma demee droit au but rek ci sa feebar mhm. bi nga xamante ni wax nga ko mhm. paa yow nga feebar sax xam naa mooy boo déggee euh, say xarit ak say nit mhm. liñ la laaj ba pour laaj ma ko mais mauvaise haleine lu concerne nit la lu concerne askan bi la parce que jamono ji ñu toll nii feebaru mauvaise haleine dafa nekk feebar bi nga xam ni dafa nekk en vogue dafa bari trop trop trop trop ñun Serigne Sam bu ñu nëbbul bokk na ci suñu meilleure vente pour dire vrai ah. pour dire vrai may seetaan nañ ko xam. Mhm. bokk na ah xëy na boobu dafa bokk ci lu ñu gën a mën. wala lu Sénégalais yi gën a gis seen bopp. wala bokk mu nekk feebar bu gën a bëri ci jamono ji. Mhm. muy xetu gémmiñ ah suñu borom am na lu mu ci dénk. ndax feebar bala nga koy faj da nga koy xam. ba pare mooy pare. ñu bëri nag seen saam bu ñu leen defalee consultation ci seen mauvaise haleine boobu seen biir mooy am problème dañuy am problème gastrique problème estomac. dañuy am ay reflux gastrique ay ngelaw gaz. bu départ ci biir bi di génn ci seen gémmiñ ñu koy sentir ci seen gémmiñ di ko noyyi sax mu leen di xeeñ. ñu mhm. ñuy sentir xetu gémmiñ suñ sax ñi nga xamante ni tey jii génn dem ci askan mhm. am na ki xamante ni dañ daan dem ci public. Mhm. di wax ak mbooloo di ak askan bi di ak àddina. mais tey ñemetuñu lool. am ñi nga xamante ni tey jii loolu yàq na seen liggéey. yàq na seen àddina duñu génn. jamono jii masque ñuy wax ko coronavirus ñu bëri gi takk masque takkatuñu masque de. Mm-hmm. ndax ragal corona. Mm-hmm. dañuy takk masque ndax xeetu gémmiñ. barki Sëriñ Tuubaa lan ngay wax sa bëri na ci dëkk bi ñoo gis jamono jii nii corona fàtte nañ ko ragaluñu corona. Mm-hmm. xeetu gémmiñ moo tax ñuy takk masque parce que dañuy nëbb seen xeetu gémmiñ. masque yi dafa leen arrangé. ndax dañuy masqué wu pour tëj seen xeetu gémmiñ ndax gémmiñ koy xeeñ te loolu feebar la comme feebar yëpp. nit bët di méttee bakkan di ko métti gëm leen ni itim feebar la loolu comme feebar yëpp. ba nit sëñ saam ñi nga xam te ne tey jii kenn xamul ñaata bëñ lañu wekki mm-hmm. ndax xeetu gémmiñ te or que sax problème bi du problème mu dentaire du problème mu bëñ ñenn ñi sax dañu am ay amit daal ay infection fii mm-hmm. bu yeewoo suba dañuy xëx génn ay doom yu weex di ko tap ñuy xeeñ di xëx di génn ay rëtaxit seen gémmiñ mm-hmm. di yuut di génn ay dafay bu xasaw ñoom seen bopp dañ koy noyyi ñuy xasaw sëñ bi xam ga ni loolu day na waar te fekk ni bu ñu ñëwoon fii ñu defal leen consultation comme nii mhm. ñu waxtaan ak ñoom xool seen maladie xool seen problème gémmiñ googu fan la démarré mhm. fan la jaar ak yenn solution lañ ci am mhm. ñu jàppal leen ci ndax nee naa ci côté feebar mais itam ra ak ngelawu seytaane dañu gëm ñu itam bokk na ci yi nga xamante ni mooy cause yi ndax feebar boo am na lu koy causé kon nag bu mu doon dugg ci loolu. Hmm. ci cause yi dañuy xam ni nañu gëm ni ku am ngelawu seytaane ci sa yaram. loolu bokk na ci lu ko mën a produire. Hmm. voilà maa ngi jégalu ci question yi. macha allah ak leeral bi. mu doon lu am solo mais wax nga léegi cause bi mais conséquences yi tamit. Hmm. waaw conséquences yi sax ba xool xaw naa ko tuddaale. ndax xam nga. conséquence dama ko boros waaw. waaw conséquences yi nga xamante ni moom lay indi mooy day yàq àddina nit. xam nga nga am feebar bi nga xamante ni. nga war liggéey war a am communication ak nit ñi mënutoo ko am mhm. sëñ Sam xoolal yow ne la yàlla maye mhm. ngay ñëw ci sëñ Baara mhm. ngay dem ci keneen di dem ci keneen ngay am jàkkaarloo nit ñi yàlla natt wala feebar boobu est que kon li nga def nii di am fitu sax ñëw toog ak man ñu bëri yàq na seen liggéey kon c'est désavérité kon conséquence bi ci gën a rëy mooy dootoo am benn relations humaines ak ay nit dootoo mën a jàkkaarloo doomu adama wax boo duggee ci oto ñëpp taf seen bakkat boo nekkee ci mbooloo ñëpp taf seen bakkan mhm. foo dugg ñëpp tëj seen gémmiñ ndax gémmiñ gu xeeñ mhm. feebar la dañ koy faj day yàlla moo koy nattoo nit am nante ni nattu la mhm. mais natt boo gis am na fu mu yem feebar la rek ci katt kattanu suñu borom kuñ ci yàlla booleel ku daan dem ci ay dentiste daan dem ci ay hépato gastro entérologue dem fu nekk pour xool loolu te gisuñ ci ay résultat mhm. ñu dem defal la fibroscopie defal lañ lu bëri te gisoo ci résultat mhm. bu yàlla indee fii ci cabinet Serigne Lamine Bara Fall mhm. am nañ ci garab yi nga xamante ni ñu wër dina ko faj ci biir bi faj ko ci put bi ko fépp fi nga xamante ni moom fa la fa lay développé ci kàttan yàlla xel bi dana dañ ba ci xetu yaram sax am nañ te xetu yaram la ñu am ndax ñooy wax ci mauvaise haleine ndax loolu nga ma laaj nañu xam ni am nañ te ni odeur corporelle la ñu am xetu ñaq mhm. xetu poqataan mhm. am na ci jigéen ñi xam te ne xetu ween mhm. nañ ma baal ci kàddu gi ni ma ko waxee am na góor ñi xam te bu ñu sumay seen caleçon woohoo <laughs> benn waar am na jigéen ñi xam te ne odeur vaginale lañ am te loolu yëpp dafa bokk jëm ci genre traitement yi te bu ñu xam la xetu yaram lañ am xetu yaram seen yaram mooy xasaw comme di xeeñ xetu mëdd wala di xeeñ xet bu bon te am na tamit noonu la ñu mel yëre bu ñu sol tey ñoo ñu sol yëre bu weex seen yaram bi day mel ni lu génne dàkkande yaram bi day génn ñaq mu far. bu mm. xëy. mbaa muy niin muy niin loolu doy na waar sëñ Sam. ayca. jërëjëf Cheikh Modou Lamine Bara Fall ci ci ci ci ci ci ci leeral googu ndax fi ne wax naa ko léegi gis naa nit koo xamante ni comme ni nga ko waxee léegi ñametul woon a génn dem ci kenn wala ñamewutoon euh, ko waxee ñun Sénégalais ni ko tàmmee di wax te hmm. xetu gémmiñ moo ko waral hmm. ak yu mel noonu mais sëñ bi bala maa génnaat ci question boobu wax nga solution yi mooy képp koo xam ne ñëw na fii ci cabinet bi incha allah wala sama borom mën na ko cee defal sutura waaye da nga ko bi ngay boro sànq nga wax ni maanaam xeetu xeetu xeetu ay dama jàppoon ni li koy causé ay xeetu angine ay xeetu waxu yu mel noonu moo koy causé. Hmm. mel ni cause bi dëgg-dëgg du du ci yow du du xeetu woowu noonu. waaw cause bi comme ni ko waxee rek euh, feebar la. Hmm. feebar la ay infection hmm. nee naa mën na waral xeetu yaram nga am xeetu yaram wala nga am xeetu gémmiñ mhm. infection dafa bokk ci lu koy jur nga am ulcère estomac mhm. dafa bokk ci lu koy jur nga am ulcère wala nga am estomac mhm. dana bokk ci lu koy jur bu nga am mauvaise haleine nga am nga am nga am hémorroïde bokk na ci lu koy jur kon cause yi bëri na ah sëñ Saam na ñoo baal de toxkat yi toxkatu cigarette yi ak bi naan sàngara bokk na ci lu koy jur naan ko sàngara yu bëri ñemee ñoo ubbi seen gémmiñ ci kanamu nit ñi. Hmm. ndax xetu xetu xetu sàngara alcool bi. Hmm. xet xet googu dafa am xet. dafa am xet. lugub lugubin dafa am xet. poon poon dafa am xet. Hmm. yamba. bi gars yi di tuux nañ ko wax. dafa am xet. te li nga xamante ni yow ba nga juddoo ba tey ba nga am cinquante ans yaa ngi koy utiliser. dafa am odeur yaram. sans compter bi mu dafa yàq ay dënn. day ay dënn. te ñun traitement yooyu buñ ci eggee am nañ sax ba ñoo xam tam tey jii sa bëñ bu xalloon mm. wala mu jaune wala mu xonq mm. wala sa bëñ kadam am nañ ci poudre yi nga xamante ni dañ la koy jox garab la nga xam te dañ la koy jox soo ko brossé sa bëñ weex tal mm. bokkul ak sax ba tey liy traité mauvaise haleine bi ci bëñ yi wala ci gémmiñ bi wala ci biir bi mais dañ la bëgg wax ne traitement boobu traitement bu yaatu la jërëjëf Cheikh Modou Lamine Bara Fall ci leeral bu am solo boobu nee naa li moo tax may sawar di di ñëw ci yow dama lay gis léegi di la namm lool nag waaye bu ma ñëwee ci yow maanaam di di nga indi leeral yoo xamante ni ku toog di seetaan dina xam ne lii kat fi ne lu lu lu lu concret la mhm. maanaam nekk ko fi di wax si mais da ngay concret ngay def quoi fi mu ne moom loolu bokk na ci li ñu ne mhm. numéro téléphone yaa ngi koy junj léegi bi ma la xamee ba tey say numéro téléphone soppikuwul mhm. te la xamee peut-être bokk na ci mën première émission bi ma njëkk a def Africa 7 wala deuxième wala troisième yow laa ko defal mhm. te boobu ça date de de 2014 2013 2014 macha allah te boobu ba tey numéro yi yaa ko yor adresse bi nga amoon dëkk fa tam ba fa nga nekk fii cabinet bi nekkoon tam ba fi la nekk mhm. mu lu am solo numéro téléphone yi 77 euh, lay doon 169 45 45 77 149 169 45 45 wala 77 160 93 93 77 160 93 93 mooy numéro téléphone yi nga xamante ni euh, du soppiku heure boo ci woote incha allahu rabi 24 heures sur 24 des des na la wuyu lii say itte ak sa soxla yi tamit bu la neexee boo ko fa waxee bu soobee yàlla des na la ci eh, jox ay saafara yoo xam ne ak i tegtal yoo xam ne dina la mën a musal ci lu bare bare sëñ bi ñu gis ne mbas mi dugg na ci réew mi tudd nga léegi masque yi tax na ba fi mu toll nii ku nekk mi ngi ciy jaar dina butu waaye solution bi du masque yi nañ jóg faju ji ndax feebar des koy faj fi jamono toll mbas mi jaar fi mm-hmm. tëj fi lu bëri dëkkañ fi lu bëri yàq fi lu bëri Mhm. ñu nangu dogal bi. Mhm. waaye buñ ko xoolee examen yi mi ngi nii di dikk. concours yaa ngi fi. emploi des jeunes doom loo xamante ni wax dëgg yàlla ku tudd actualité ci réew mi ci àdduna. Mhm. tudd ci emploi des jeunes. bokk na ci tam li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy bac BFEM élèves yi nekk ci jàng ñi ngi ci juin école léegi daanaka mu tëj examen yi ñoo ci des. si la am na luñ xamoon ci yow. nga mënoon ko lool. adduna daal la ci seet si mhm. ndax nga naan toog ba yàgg génn sax daal di joxe benn benn benn sarax mhm. pour ñuy def examen concours mhm. li ko waral xëy na ñëpp man nañ koo bañ a xam waaye bu ñu nee sëñ lam sëñ Lamine Bara Fall euh, surtout maam Cheikh Rafaal di doomi soxna bokk ci fu wér ana lan nga ñu ci mën a indil indil ko askan wi plus particulièrement ci ñuy def concours baccalauréat yeeg yu mel ni waaye emploi des jeunes solution ban nga ci am jërëjëf sëñ Sam Euh, fi ñu njëkk commencé rek mooy ci emploi des jeunes bi nga mujj daaneele mhm. ndax emploi des jeunes moom dafa nekk li xam te ni mooy thème d' la ndax moo jaaxal àddina jaaxalul Sénégal de jaaxalul Macky Sall de mais li nga xamante ni moo jaaxal France mhm. jaaxal ko Amérique mhm. yëngal France ak Amérique ci ñaari at ñett kon du bàyyi benn dëkk africain waaye nag ñun Afrique dañu am suñuy valeur traditionnelle ñun Afrique dañu am suñuy valeur traditionnelle amee suñu ressource naturelle mhm. ñu koy waxtaane suñu ressource naturelle minière et tout mhm. ñu koy waxtaane kon Afrique itam dafa am ay valeurs traditionnelles am mooy li fi maam yi bàyyi mhm. suñuy maam dañ daan am seen kër di ko yor wërsëg di ko am ñu nekk suqak alal suqak bajaaw ndax maam yi dañ daan am seen ay tool am seen ay liggéey am barke te léegi barke boobu nit ñi dañ ko taataanatul muy wut ko muy barke wut barke ndax àdduna lu nit am rek am am licence am sens da koo gën. am nag moo nekk nii mooy jaaro bi ngeen di gis surtout Yusufa lañ koy liggéeye jaaro bi képp kuy def examen. di def bac wala ngay def BFM. xool ko bu baax nga xàmmee ko c'est unique dans son genre. jaaro bii. toujours comparé mais jamais égalé. si bi bu baax ñu gis ko jaaro bi dañ ko war a gis waaw xool ko rek bu baax ne leen jàkk am ngeen xool ko ba ñu koy bëgg di ko am ak ñu koy takk ngeen xool leen bu baax. ñi ko am nañ leen xool wala ngeen laaj leen mhm. képp ko am jaaro bi laaj ko fa mu tolloon ak ba ko amee léegi fu mu toll nee naa la toujours comparé mhm. mais jamais égalé Sëriñ Lamine Bara Fall ba muy génn ci télé <laughs> di wax jaaro boobu sëriñ bi ñeme génne jaaro amuñ waaye bu janax génnee ñu ni janax waaye bu beneen génne daa ñu ni jeneen kuy waxal yàlla rek xam ne ni wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa nit booy sere da ngay sere loo xam mhm. képp kuy seetaan télé di seetaan média di seetaan sëriñ ci monde audiovisuel ci jamono wër na Serigne Touba mm-hmm. xam na ni Serigne Bara Fall nit ku ko njëkk a jaaro di ci wax amul nee naa la bu janax génnee daañu ni janax mm-hmm. bu beneen génnee ñu ni jeneen mm-hmm. mais jaaro bi kuy def bàkk def defem bëgg am liggéey parce que salaatul faatee laa ko gëñ de ndax surtout yaa surtout Yuusufa bu wër lañ ko liggéeyee bu wër laa wax de bu wër moom lañ ko liggéeyee jaaro bi dafa ànd ak ay sangat di xam te ne sa lañ koy liggéeye ànd ak ay ñaan ànd ak ay cuuraay ndax bayre boo koy defal nit foog nga ñaanal ko pour mu ubbeeku mm-hmm. bayre balay nit di ko am am muslaay mm-hmm. nit ki dafa war a ubbeeku pour emploi des jeunes boobu bépp jeune bi xam te bëgg liggéey mm-hmm. sa wërsëg ubbeeku nga xaalis buy toog xefee la am ci jaaro bi képp kuy def examen ngay def bac ngay def BFEM bëgg bëgg ko réussir say waajur ñu la ko wutal wala nga wutal ko sa bopp en tout cas ku ci def moom di nga am examen bu baax te dañ la jik ndax dafa ànd ak ay ñaan ànd ak ay muslaay ba pare di nga am mention très bien ak étonnement de jury loolu laa mën a wax mhm. kon nag li nga wax sànq dafa leer mhm. nit ñi dañu soxla ubbeeku mhm. senegal ñoo soxla am am Sénégalais ñoo bëgg am lu sell am lu dagan képp ki xamante ni bëgg nga am wërsëg bu ubbeeku bu baax tey toog c'est le moment ci kàttanu yàlla amal bi jërëjëf sëñ Lamine Bara Fall ci leeral bu am solo boobu ni nga ko waxee léegi nee na maa wax léegi ne bi ñuy ñuy def émission ngay njëkk a wane jaaro boobu defe naa ne booba 2013 la woon su ma juumalee maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax ci jaaro yu bële ak yu xonk ya benn bi jaaro joo xamante ni wax dëgg yàlla ci kaaraange la doon dox bi ci des doon dox ci ouverture mhm. mhm. maa defoon ak yow émission boobu ci Africa 7 lañ ko defee woon ci suñu police ba ca ginnaaw toole maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax mhm. booba jaaro xewul day seede firndeel li ngay wax ndax sëñ Abdoulaye nee na dëgg bu jubee am firnde tu ngox ko hmm. mu doon lu am solo macha allah rabi ñu ngi ci amal mbégte bu ma sax hmm. yax yow boobu 2014 2013 nga wax hmm. képp xam Omaro mu Cheikh Béthio Thioune ci année ay 2011 2010 2011 ba mu nekk LCS ci weeru koor mu mu ñëwee 2STV jaaro bi ñoom xam nañ kon boobu jamono kenn boobu réseaux sociaux sax bëriwul comme ni tey kon nag pour wane la yow sax def na ci émission en 2013. Mhm. mais xaaraatal ni ay 2010 2011. ñu bare bare bare bare bare bare daan nañ ma xam boobu di ma gis si plateau télé yu mag yi. Mhm. wóor na Serigne Touba Mbacke. kon nag ñi nga xamante ni ñoo ñu wax jaaro. Mhm. xamu xamuñu teen ba fan nañ ko bënne. waaw xamuñu affaire yi fa mu soqeekoo xamuñu garab gi fan la ren bi nekk. ren baa ngi fii. jëneen ji nga doon te tugg fi jiwaxu fi. fi deux deux mille ba ba léegi deux mille dix ak deux mille onze ba suñu yoon yàlla tey. Mhm. man sëñ Bara Fall maa ko wax. mosuma mhm. toog bis. Mhm. bu nit ñi ñu jënd si dara mosut am mosuma xëy suba ba ngoon jot. te nit ñi ñu fii géejawaay arrêt du res jënd si ko. examen bi moom bu jógee see baax vraiment baax. mënuñu am lu ko doy. lu ko doy moom mënu fi am. parce que Serigne Touba lu fi doy ci jaaro amul mënuñu ko am. waaw ah. macha allah mu doon loo am solo kon fu mu neex dëgg yàlla ni nga ko waxee rek dëgg moom heure bu jotee rek fi mu ne taxaw si ñëpp laatu ko kon macha yal na yàlla dina dëggal taxawaay bi te gën a mottali yéene ci askan wi ci daraja yi bële sa wasalaam ko léegi protection kaaraange doomu aadama ci wàllu rab hmm. ci wàllu jinne hmm. ci wàllu seytaane hmm. parce que dañuy dégg rek fi mu ne yooyu yëpp rab jinne seytaane différence bi lan la kaaraange bi ban kaaraange nga mën a indi askan wi ngir ñu mën a mucc ci yooyu. daan mhm. diggante rab. Mhm. jinne ak seytaane. naari. Mhm. ak ak alxuraan. ñooy indi jinne ak seytaane. alxuraan ak naari. ndax nañu fàttaliku ne alxuraan ñooy ko bind ci arab. arab jinne lay bind. ci alxuraan surtout jinne yi dafa yàlla wàcce. moo fa ñëw jinne. kon ku wax rab amul kon da nga weddi alxuraan rek wax ni kon jinne amul. wolof nag boo demee ci alxuraan doo fa gis fu ñu bind rab amul ci alxuraan baqara ba naa si amul rab amu fa mm-hmm. rab na ñun wolof Sénégal boo génnee rab kenn xamul lan la mm-hmm. xanaa nga wax seytaan boo génnee Sénégal neen seytaan daañ comprendre li nga wax mm-hmm. mais baat bi dëgg jinne la kon rab ak jinne ak benn la amul différence mais am na nag leneen lu am ak ñoom différence mooy dëmm nag ma baal ci kàddu kàddu googu ak baat bi dëmm nag moom leneen la dëmm leneen la mais dëmm it am la. damay dégg ñu ne dëmm amul. non dëmm am na ku ñu dëmm amul dëmm dalaa jàppul. ku ñu dëmm amul sax dañ la war ragal. <laughs> waaw ku ñu dëmm amul maa ko wax ku la war ragal képp ku wax amul yow nañ la ragal ñun Sénégalais lañ. Mm-hmm. képp ku nekk xale ci ñun ak ku mënti doon amul imaam amul ustaas amul ibaadu amul waaraate dara. Mm-hmm. képp kuy xale. sa ndey ak sa baay. Mhm. ak say maam nee la kër gee. leen mhm. waaw ñun la bu fa dugg. nga di maam lu tax. Mhm. wala baay lu tax ñun la nii. bët bu aay ndëppeef. yonent bi sax sallallahu alayhi wax na moytu leen bët bu aay. ak làmmiñ bu aay. ba tey sax loolu dafay dugg ci diggante dëng. rab seytaane ak cat. ñu bëri dañ koy tudd mais ko ràññee. cat. nit moom mooy catu moroomu nitam. dëng nit la. comme ñun ñëpp. Mm-hmm. mais nit la bi nga xamante ne dafa xam lu nit ku normal xamul. moo tax ñu bëri da ngay wax ñun la ñun xamuñu duñ dugub ak soow. Mm-hmm. kooku nit ku normal la keneen nag moom xam na leneen. Mm-hmm. la mu xam nag mooy xamal mooy mooy mooy jóg ci kaw nit. yàqal ko. lor ko wala faagaagal ko. sëñ Sam xam naa ni beneen émission bu yaatu lañ ciy am pour affaire yu dëmm. kooku moom ku ma ci may dinaa la ci may exclusivité bi nga xam ni dinaa wax ci affaire yu dëmb li xam te mu kenn musul dégg donc nag xëy na thème bi da dul loolu te temps bi ko may mm-hmm. kon def seen différence ak leen doon wax rab moom mm-hmm. comme ni ngay déggee suñu di daanu rab mm-hmm. war nga gis jigéen buy sëy lu lu yàgg toog lu yàgg war a am borom kër mënul am borom kër gis ku góor waru mën a am soxna mënu am soxna mm-hmm. wala nga gis jigéen bi xam te ne sëy bu mu am day tas mm-hmm. wala nga gis góor bi xam te ne lu mu yaakaar day tas mm-hmm. mënul am dara ci loxoom du xaalis du alal du sëy du liggéey lu mu am day seey yaa ngi wax léegi emploi des jeunes am na te ne rab moo leen tere ñu am liggéey am na te ne ay saraxa leen tere am liggéey te loolu yëpp bu ñu ko seetee ci nit ki ci alxuraan laay seet ndax bu fàtte sëñ sax man damay seet su ma seetee ba gis ni kii cata ko jàpp wala raba ko jàpp wala seytaane ko jàpp wala dëmm ko jàpp wala liggéey moo ko jàpp ñu dafa koy ñaan dafa koy sarax mu am liggéeyam mhm. différence maa ngi jégalu jërëjëf Cheikh Modou Lamine Bara Fall solo boobu loolu nga euh, ko utal waxtu utal ko jot uniquement pour loolu parce que dafa jot tam sénégalais yi yeewu a baax a mën a am solo mais sëñ bokk na ci tam ba tey bala maa génn fi ñu nekk ni ndax foofa dafa doon fu am solo li nga xam ne mooy ay xabtal ay ay ay ay nawtal ak xam ne mooy wootal. Mhm. yu mel noonu. Mhm. dafa ci ay kortu wala ay ay ay xale yu mel noonu moo koy jur wala lan mhm. parce que dafa njëkk wax xabtal. xabtal wax nawtal. yaa ngi dégg wax wootal. yaa ngi dégg. yooyu dafa nekk ay xam-xam yi nga xamante ni ñun sëriñ dañ koy faral di def. nit kon ma jëkkee ci xabtal mm-hmm. bu ci nekk dama ci joxe exemple mm-hmm. nit dana nekk ci barab di liggéey mm-hmm. mu jékki-jékki rek bind lettre de démission dañ ko xabtal loolu xabtal lay doon bi boobaa te moom sax xamul lan moo tax mu bind lettre de démission nit dana liggéey ci benn structure am fa njëriñ lool waa structure bi mu amal leen njëriñ lool mais dañ ko def li nga xamante day jékki-jékki rek doot fa dugg toog ñu affecté ko woon ko Dakar mu jékki-jékki rek ñu bi Tamba wala ñu def ko li nga xamante ni heure liggéeyam su xëyee huit heures. Mm-hmm. war a war a wàcc quatre heures wala cinq mm-hmm. moom bu ci toogee ci seize bureau am balay dix heures midi dafay mel ni tant que génnul bi du am jàmm am na ñu ngi koy def ci seen sëy. Mm-hmm. am na ñu ngi koy def ci seen liggéey. am na ñu ngi koy def sax ci wàllu match de football yi. leen pour ñuy blessé di gaañe. am na ay kilifa yu ñu koy def sax ci wàllu média. ci wàllu presse xabtal leen. pour ñu wax erreur juumloo leen. kon ku sëriñ am rek sëriñ da laa jàppal te mënoon nañ ko wax ci corps de métier yu bëri mais ci exemple boobu rek lañ ko mën a jël loolu mooy xabtal nawtal nag nawtal nawtal moom beneen mbir la nawtal mooy ki nga xamante ni nit ki dafa nekkoon ci barab nga jékki-jékki nga dëjëti ko fa nit nit kuy sëy mën nañ ko nawtal koy liggéey itam dañ koy nawtal nawtal dafa am ba ci mala yi sax dañ leen koy def même même même pêcheurs yi nga gis nappkat yi. Hmm. am nañu gàllaaj yi nga xamante ni ci naawtal lañ koy def. ndax jëm dana nekk ci biir géej ci biir biir biir biir. Hmm. géej ci xeer ya. Hmm. am na luñ ciy def naawtal ko pour nappkat boobu day jàpp jën saa su ne. lu géej gi dëgër dëgër lu géej gi kaaya kaaya kaaya kaaya kaaya day jàpp. kon loolu ba léegi xam-xam la. wootal nag wootal mooy ki nga xamante ni exemple dafa tukki. dem bitim réew nekk fa amuñu njëriñ ndeyam amuñu njëriñ baayam amuñu njëriñ soxnaam nekk fa pour biiru boppam kese exemple boobu am na mhm. moodu moodu senegal ñu am jom lañ mhm. lekk ñu dara bàyyi seen réew waaye ñëpp mënuñoo yem ñu yàpp yëpp na nee res am na yàpp yi xam te ni paakaru ci am yoon mais dañu jàngale rek joxe exemple mhm. nit am na ci ki nga xamante ni dafa ndayam ak baayam ak ay mbokkam dañu jaay seen kër. Mhm. fii ci Dakar. fayal ko mu tukki fayal ko mu tukki. cinquante ans mënta ñibbisi. mënul bu wootee du yónnee. kooku nag bu dajee ci sëriñ bu mel ne sëñ Bara Fall dañ koy wootal day ñëw. waaw mais mu ñëwaat ak loxo yi neen moom. Ah, damay wax rek exemple. <laughs> je suis pas là pour juger. mais yéen ñi si tànn vous êtes là pour constater. Mm-hmm. man man juger ma de. Mm-hmm. damay leeral a nekk lu mën a nekk la. Mm-hmm. parce que lu mel noonu tey bu ma ko nit waxoon it sama diggante ak sama borom man dama koy seet. ndax man sëñ Saam ma dara ma nit waxee dama lay wax consultation dama koy seet. man du ma def lu ma xoolul. kenn mënu ma influence kenn mënu ma manipuler mhm. waxuma fii pour naan lu bon wala lu baax da nga ma laaj pour xam parce que mhm. kii toog ñii di seetaan sëñ Sam mhm. yow fi toogal te moom mu may seetaan dafa dama ko war a leeral pour mu xam voilà kon buñ mu jàppee benn jugement damay waxee noonu rek acca bismillah Cheikh Modou Lamine Bara Fall ci leeral yu am solo yi ni ma ko waxee léegi rek wax dëgg yàlla waaye sëñ bi da nga tudd ñett yoo xam ne dafa benn boo xam ne dafa dafa daf cee manqué te defe naa ne bokk na ci réew mi ñëpp moo leen yéen mooy baatu noot ndax dañuy dégg xabtal naawtal wootal waaye noot lañ bëggoon xam mooy lan. Mhm. jërëjëf jërëjëf sëñ Sam yow damay wax mbër bu yàggee joueur bu yàggee joueur bu yàggee dem entraîneur <laughs> waaye xam naa ni yow moom yàgg ngay interviewé sëriñ parce que li ma dégg la wax nii. ku bëgg xam-xam génn dégg moo koy laaj. Mhm. baatu noot nag ku ko dégg rek ci sëriñ xam ni noot moom lu yàgg la ci sëriñ. Mhm. noot loolu moom macha allah. waaye sëñ saam xam nga luy nopp mhm. nopp mooy kee xamante ni dafa am soxna mhm. soxna su mbirum mbàcc mbirum mbàcc un oui mu ñaan baat wala mu fase wala mu dem mu fay kooku dañ koy nopp nopp mooy genre nopp mooy li nga xam dañ koy def ni comme farine ni koy def noot farine dañ koy noot ci baat wolof dañ koy yindi mu mhm. koy tàpp wulli ko ba mu nooy du ay dóor nag mm-hmm. waaye nag tur yàlla xajul ci bopp golo dañ koy def li nga xamante ni mm-hmm. nopp ko ba mu toog ci sëyam xelam mën a nekk ci sëyam te loolu mooy di jafe luy mm-hmm. jur bu jigéen bu nekk war nga war a mën a góorgóorlu sa doom mu toog ci sëyam ndax man lu jëkk ñu nañ leen daal bu ñu daan mayee seen doom dañ koy nopp mu toog ci sëy ba mu am xolu muñ ndax ku xam sëy xam ni sëy metti na sëy neexul waaye sa jëkkër dafa guddee wala sama jëkkër dafa am jël sëñ baara moo tax man man fase naa ak fa bëri lu ndaw ñu dem seen yoon. lu mhm. ndaw jigéen ñu bëri ñoo ci tas si Sénégal. Mhm. koo ci laaj lu tax mu tas seen xamu ko. lu leer. boo demee tribunal dossier yi toll nii ay kilomètres kilomètres dossier ñoo foofu ay carton yi armoire yi armoire. Mhm. koo ci wax mu na problème de compatibilité d'humeur maanaam mënuñoo jubóo ci néegu sëy. góor bala ngay takk soxna da nga koy seet. dañu seetal la xol seen rawaan bu rawaan ba pare. rawaan yi dañ leen war a neexal. Mhm. naa neexal rawaan yi pare dañu war a noob sëy boobu ku góor ki war na ko def ku góor ki ku jigéen ki war nañu ànd def ko. Mhm. ku jigéen ki war na ko def ay ku góor ki war na ko def. Mhm. ay wéjur ku jigéen ki war nañ ko def. képp ku am sa doom nga bu baax sa doom toog ci sëy loolu war nga ko def. xoolal sëriñ bala doy nga dem ni ko dama bëgg ñu noobal ma sama doom mu toog ci sëy bi. waaye nag na nekk jëkkër ju ko jarit itam ndax dana ci bokk am solo. waaye nag sëy bi tasit loo mënti gis sama jëkkër ju bon moo gën sama far bu baax mm-hmm. Mm-hmm. ndax xale jigéen yi maman ñeen ñi lay seetaan nekk yor ay doom ñuy sëy mm-hmm. seen doom yi bu ñu tasee seeni sëy it ñibbi si si biir kër gi coono rek la leen di dikkal te amuñu sécurité amuñu sécurité de kon nag nga dem ci ku ne na Serigne Bara Fall ñu noobal la ko baax na am na xamante ni nag yàlla daf leen dimbale seen jabar nañ ma baal xasuma dañoo woyof sër mag ñu jëkk ñi lañ daan defee lay wax de woyof sër mm-hmm. ak yolam gaño mm-hmm. am na ci réew mi de yolam gaño ak woyof sër dafa am mm-hmm. am na jigéen ñoo xam te ne amuñu mënuñu toog tànk bu toogul nag dëgg musiba ñooñu itam seen soxna dañ ko war a nopp mu toog am ñoo xam te dañu am ay doom yi xam ne dañu nekk bandi di tux yàmbaa di drogué wu di agressé dañ leen waroon nopp ñu toog ci kër gi. Mm-hmm. ndax jamono ji sëñ Sidi Muxtaar dafa waxoon ci jamono. Mm-hmm. bu nu ñu dee daw ngeen dox bu nu ñu dee dox na ngeen toog bu nu ñu toogee sax na ngeen tëdd. Mm-hmm. kon nag dal rek nee na kuy naaw ak kuy daw du egg. xale bu toogul bu amul tëggin du teggi dara ku amul yar doo yor dara. du samay wax nag waxu sëñ Sidi Muxtaar la woon ci jamono ñu profité sax ko ñaanal mhm. xalif général des mourides di sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke mhm. ñoo koy ñoo ngi koy ñaanal yàlla na suuf woyof ci kawam ku amoon pédagogie la ku amoon psychologie la mhm. ku mënoon jàngala la ku doon wax wax ju rafet ci ndaw ñi waaw ku ñu tekk rek tekk wan yoon kon nag jamono ji Sénégal loolu lañ soxla ku amul yar doo yor dara amoo yar doo yor dara. ku yarul. Mhm. doo yar dara. kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax. Mhm. ñu gën a dëgëraat way juri maa ngi tuub di jégalu ci kàddu yi. <laughs> alhamdulilah jërëjëf sëñ Lamine Bara Fall. dafa am baat boo xam ne dañuy faral di ko dégg te xamuñu lu mu wun muy baatu woon. Mhm. bëggoon nga nga indi ñu ci leeral ñu xam lu mu doon. ak naka la si mën a mën a mën a mën mën a. waaw woot moom ñi ëpp ñi koy def mooy ki nga xamante ni dañu bëgg xëcc dara. bëgg xëcc dara genre foqet la. ok nga xam da nga bëgg xëcc dara mu bañ. ñu ngi koy utiliser nag ci góor bi nga xam ni da nga am as as ndaw soo bëgg. Mhm. da am ndax ndaw soo bëgg kooku jublu la. Mhm. muy benn wala nga amoon ko mu rëcc la. Mhm. wala góor amoon soxna su baax. wala am jëkkër ju baax mu rëcc ko. kooku dañ koy wocc a fi ne su ma amoon ndaw ndaw nasaraan su ne bitim doo te yor dara rek ma bëgg mu kii fi mu toll nii. waaye sëñ Sam loolu moom loolu loolu moom koy def lu gaaw la. waaye sëñ bi. képp kee xamante ni non képp kee xamante ni yaa ngi am lu jigéen ji nga bëgg mu tëla. Mm-hmm. loolu moom baat ak lay doon. que ku fi ñëw ci kàttanu yàlla ak baaxamu yërma dem ñu defal la ko. te ko jigéen mën a amee ci ku góor. waaw boo amee sa soxna ñi nga xam te daf la rëcc. Mm-hmm. wala nga am koo bëgg jublu la wala jublootu la. wala sa diggante ak moom sax comme li xew ci dëkk bi mm-hmm. jigéen dana am waayam su baax mu mel ne sëñ Saam amal ko njëriñ. lool mu jékki-jékki beneen jigéen bëgg ci récupérer ko. Mm-hmm. récupérer ko loolu nag te fekk ne du ko tey am na sëñ yu bëri ay jigéen ci dugg. Mm-hmm. te bu ñu demee ba xam jigéen daf ci dugg rekk ñun loolu baat wat la pour ñu mën ko defal ba loolu dellu si. macha allah dëkk bi ñu bëri dund nañu loolu hmm. amoon ku baax kooku rek ci leen jigéen ñoo nangu ko keneen ñoo nangu fa toog seen hmm. hmm. ko baatu déggati ñëw na déggati ko ñëw toog ci place am jigéen ñi ngi sëy nit teg ci sëyam pour ko pour toog ci place am jigéen boo góor amoon na soxna su baax bëgg ko loolu demoon Europe wala nangam kooku rëcc ko wala mu am fii as di ko defal lu ne keneen ñëw jaar ci suuf loqati ko nangu ko te loolu yëpp dafa nekk li nga xamante ni ah ku ko dundul rek mënoo ko xam ah. ku ko dundul rek ko xam ndax baat yi nga wax ay baatu wolof dëgg nga wax. làkkoo tubaab làkkoo naar. kàllaama ko ci dañ ko. te ñun Sénégal lan lañ xam te ñun loolu la dund dañu bàyyi complexe bi. Mm-hmm. làkki tubaab ak làkki naar daf ñuy sonal. nañu mm-hmm. wax lu Sénégal yi dund wax dëgg dëgg luy seen ay réalité wax xam-xam yu maam yi fi maam yi daan dund. ci bi nga commencé ba léegi ci loolu ngay wax suq ak alal suq ak bejaaw. Mm-hmm. nit da ngay am kaaraange. yaram bi dëgër këcc ñun mbat koo laal sëñ Sam mu niil laal niil. wallaahi maa la ko la xam. Eh? bisimilah. <laughs> kon nag ne eh, ba pare si yàlla nga ñu laal ñun ñii ba nee naa leen ñoom Moussa gars yi ci des yëpp ñun ñëpp ñu daal di far ñun ba mu mujj a bal rek ci kàttanu suñu borom ndax gannaaw nag ñu ngi fi. Mhm. Eh, wax dëgg yàlla li nga faral di wax ba ñu toog ca 2013 Africa 7 nga ne ma mbooleem feebar bu fi yàlla wàcce rek li koy saafaraal ci wér gi toog. Mhm. ñàkk xam wala ñàkk gëstu moo tax saafarawuñ ko mhm. waaye kii la dem woote ba woote ni moom boroom xam-xam la mhm. waruñu ko laaj loo xamante ni mënu koo tontu ci xam-xam mhm. te loola ba tey ci pédagogie boobu yaa ngi ci macha allah yal na yàlla sàmm la te aar la jërëjëf Cheikh Modou Lamine Bara Fall ci leeral bu am solo boobu waaye daal bokk na ci fi mu ne fi ma bëgg ñu dugg fa ci sama copte damaa jàkkaarloog univers bio bi waaye daal bëgg am benn ñaar ba ñett yoo xam ne daal dama la koo bëgg a nga indil ma ay leeral ci biir butigu univers bio bi ma bëggoon daal ñu jóg dugg foofu noonu waxtaane ko ndax lépp xaju fi mhm. waaye ñu am luñ ci tënk rek ñaar ba ñett rek mhm. indil ko leeral ci askan wi nga xam ne ñuy bàyyi xel ci jamono bi ñu toll bi nga xamante ni dugg si nañ fi nga xam ne mooy biir univers bio ak macha allah produit yi nga xam ne liggéey ko fi fi ma a tàmbale rek lii may tiim nii yëpp dama bëggoon nga ci lan mooy li nga xamante ne mooy saafara euh, ngóora wala néew kàttan ni ñu koy la di wax ndax mi ngi taskar yi waaw sëñ Sam mhm. jërëjëf Euh, li nga xam ni moom ngeen gis ma yor mhm. lii mooy faj ngóora ci ñun mhm. ndax ñu nit dañu li ñuy fajee ngóora bëri na yaatu na am nañ ci garab bu ñu naan mhm. am nañ ci sunguf am nañ ci siro am nañ ci maanaam daal yaatu na li ñu koy fajee waaye bii moom mooy daj dëpp ki bii moom mooy unique dans son genre bii mm. mooy rapido extra mooy ñetti ñetti pommade la ñu bëri nag garab ngóora li ñu ci xamoon mooy li ñu naan mais ñun lii ay pommade réparateur la ay pommades la yi xam ni day faj ci wàllu doole. Mhm. faj ci wàllu ngóora mhm. faj ci wàllu kattan ak faj ci wàllu sëy. Mm. léegi butéel bii ngeen di gis. Mhm. mooy faj lépp lu jëm ci puissance sexuelle pour puissance bi. bu bële bii ngeen di gis. bële la bu bii rouge la bi ma njëkk wane. bu bële bi mooy faj lépp lu jëm ci wàllu précoce. bii moom nag moo koy dëgëral ba pare may ko jëm. xam nga am na ci nga xamante ni saa waay ñu yor dafa dafay tuuti. Mhm. te gàtt. Mhm. wala muy nooy muy nooy du dëgër du ñu sëyit du ci gis seen bopp. Mhm. te lii ay pommade réparateur la ay crème réparateur la loo ci diw rek. bi nga xamante ni daf lay may des bons érections te dafay réparer lépp li nga xamante ni moo doon tax ngay gaaw a daanu. wala doo yëg sa bopp wala sa soxna day tëdd nga tëdd semaine doo sax sawar pour ànd ak moom. kon kii moom macha allah. Hmm. comme ngeen ko gisee ci ginnaaw univers bio. Hmm. fii moom ay produits yu baax a baax a baax lañ jox. lépp naturel la lépp naturel. parce que boo la déggee bu baax dafa mel ni fi mu ne yaa wax ne fi mu ne yow fajuloo rek yem ci mais da ngay am problème dafa xam ne daf ko moo ko yóbbee loolu. mais sëñ la nit ñi soxla. Hmm. nit ñi ñoo soxla tey ji oto bu paan. dañ koy réparé. du dëgg. moteur day dem ba mu yàgg day kuule. am ñoo xamante ni seen délai doxatul. seen am seen braquage gàtt na. amortisseur yi doxul amortisseur yi amortisseur toosu. loolu yëpp day am <laughs> moo nekk nii. <laughs> macha allah waaw oto sax moteur pour mu dox foog ñu lubrifier ko. c'est que ay wéñ lañ taxale. voilà bi nga xam ne moom kon nit itam dafay toll fi nga xam ni. Mhm. paaka bu yàggee dagg bu yàggee day daay. day daas foog ñu daasaat ko. Mhm, kon nag nàmmalaat ko ba mu baax. kon bépp góor nga xam te ne am nga jafe-jafe sa góor sa doole sa kàttanu say voilà. Mhm. te li ci gën a neex mooy ñu bëri ay aphrodisiaque lañ daan jël. ay viagra ay comprimé di jël ay affaire yoo xam da nga koy naan sa bopp di métti di naan sa bopp di métti di ñiir lii nag looy diw la amul toxique amul chimique diw def gis mi ngi nii kii daal mooy tudd def gis mm-hmm. def gis la tudd de bii diw la rek moom di nga mel na ci seen compte. moo tax ñu tuddee ko rapido. waaw ko rapido moom dépassé na rapide sax moom fu mu toll nii. TGV la wala moom la noonu daal. express express la. macha euh, mu doon lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla kon li moom war nañoo mën a ñëw wut si kon ndax fi mu ne daanaka dañ ko xamee. luñ euh, daan naan dañ doon ay sunguf fii ay lu ñuy boole café ñu kenn xamul waaye lii moom defe naa kenn dootu ko naan te fii la am ci univers bio macha allah wala yàlla xet doolu bokk na ci tam li nga xamante ni mooy hémorroïde tamit defe naa am nañ fi itam traitement yi nga xamante ni moom mhm. mu ngi fi pour hémorroïde comme ni ngeen ko gisee fi moom macha allah large gamme de produit large large gamme de produit moo fi am mhm. sëñ Sam lu ñu mënoon waxtaan bëri na mhm. waxtu bi moo ñu ko dul may waaye ci wàllu hémorroïde macha allah ndax ko fi ñëw jënd garab hémorroïde yi dafa am garab gi lay jox am na looy naan mm-hmm. pour mu faj hémorroïde bi ci biir waaye itam am na li xam te ni hémorroïde seen ginnaaw mm-hmm. day ndem bay nàcce mm-hmm. def na fa taab wala am lu fa génn nga xam te ni koy dugalaat seen loxo wala seen ginnaaw def ay putantaan mooy externe bi loolu yëpp dañ lay jox pommade pour pompe pour hémorroïde externe jox la looy naan pour côté interne bi mu dañ ci insha allahu rabbi traitement bi un mois la rek waaw yooyu bi un mois rek rabbi macha allah kon opéré yi may dégg ci hémorroïde yooyu yëpp fi ne daal yow newoo ci yooyu kàttanu yàlla ndax damay faj yàlla may man sëñ Bara mënuma lépp mhm. ndax yàlla rek moo mën lépp yaa zal jalaali wal ikram mhm. kon nag ñun mënuñu lépp dañuy faj mhm. mu doon lu am solo waaye bokk na ci du ma ko génn ndax génn ñoo bokk ndey gi xam naa ne bu ñu bokkul ndey gi ñoo bokk maam gi muy ndoxum siti siti mi ngi lëmbee réew mi dégg naa nag ñu ne mooy ndeyu jàngoro yi bokk na ci fi mu ne ak suñu mbokk jigéen ñi xam dañuy xeesal ñun muy def seen yaram yi lan la ñu ci mën a indil fi mu ne ak lan nga ci fi yoo xam ne mu ngi koy saafara fi mu toll ndoxum siti moom ci jamono ji. Mhm. ñu mu gën a sonal mooy jigéen ñi nga xam te ne dañuy xeesal. Mhm. ñooñu wax dëgg yàlla ndoxum siti bi sonal na leen torop torop. seen yeeg seen leneen nga gis ci yaram bu bu war rafet lool jekk lool waaye bu jëñaaw lool. bu day waar raw yi ndax am nañ ci produit bi xam te ni pour rew yi lay faj. Mhm. am na yoo xam te ndoxum siti sa jigéen bu ëmbee rek wala même bu ëmbul sax sa yaram bi day yàqu ak rew mhm. loolu automatiquement am nañ ci garab bi xamante ni ci pooyee moo koy faj pour wàllu rew yi am na ci nga xamante ni mhm. dafa am euh, ay huile yi nga xamante ni moo nekk nii ay huile la nga xamante ni ndoxum siti dafa dem ba yàq sa kanam xam nga jigéen dafa bëgg kanamam yooyu bii ñu bind sérum anti mhm. dafa am ay ñu ko defaree ay ay ay produit bio naturel yaa koy lire ne lu mel avocat ak ay tomate orange yooyu nañ koy liggéey ay huile bio la moo nekk nii yëpp nii la mel nga xam ne naturellement ci suñu suñu gàncaxu réew mi lañ ko lañ ko liggéey képp ku ko koy fekkee ci emballage bi c'est bien emballé en plus dangay ngay fekk itam ñu defaral la ko ba mu mel nii ay sérum la mm-hmm. da ngay ubbi pompe rek incha allahu rabbi ay huile anti-tache sérum la ñu baax pour bépp jigéen nga xam te sa yaram dafa yàqu woon mm-hmm. ci affaire u xeesal mm-hmm. mais am ñoo xam te wax dëgg yàlla dañu am problème u euh, kii ay heure am na ñu am problème mu heure mhm. am problème mu ay puttantaan mhm. mu yàq seen kanam waaw yooyu yëpp day am am na góor ñi nga xamee ne itam ndoxum siti bii daf leen tare am doom mhm. ndoxum siti fu nekk lay génn ci yaramu nit bu dee góor mën na ko tere am doom mun na ko yoomloo mun na ko néewloo kattan mun na ko def ay picc ci yaramam heure bu sangoo ba pare léegi nit ñi nga xam te bu ñu sangoo ba pare seen yaram day fet-feti seen yooyu day damm seen der bi day yàqu à tout moment te ñu bëri ndoxum siti daf leen macha allah kooku itam képp ku fi ñëw ci kàttan yàlla ak baaxam ak yërmandeem traitement boobu dañ ko dañ ko forfaitaire la quinze mille lay jar. ok lañ koy def. mooy bi képp ku am quinze mille ndoxum siti dootoo ko gis sa yaram barki Serigne Touba ñetti juddoo lañ koy defee ci kàttan yàlla ndoxum siti c'est fini. Mhm. bokkul nag ba tey nag ñi nga xam te ni sérum yi nga xam ne cherul dara. Mhm. teggul fenn waaw sérum yi moom macha allah dañuy bañ wax prix bi rek. Mhm. pour ne pas mélanger mais quand sérum yi pour jigéen ñi nga xam te ni ndoxum siti daf lay yàq te ñooy itam ñu soxla ndimbal lañu wallaay ndeysaan ci dëkk bi dañu bokk ah, suñu soxla la lañu suñu rakk lañ suñuy mag lañ te taxawuñu fi pour baaxal ko wala pour mm-hmm. ko waaye ñun dañ fi nekk pour réparer lu yàqu ñu defaraat mm-hmm. kon nag képp ki nga xamante ni daal mm-hmm. dem ga xeesal ba xeesal a toog mu yàq sa yaram am nañ ci solution wala boog sa xeesal maasewul am na ay taches yu nekk sa loxo wala taches yu nekk sa yaram yooyu yëpp ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem mm-hmm. mën nañu ci defal ay ñaan defal nañ ci ay garab ba loolu mu daal di dañ am nañ ci itam ay crème am nañ ci ay huile am mm-hmm. a euh, mm-hmm. mu jàpp ba fi di di seen bopp yi ba dootuñu mën a am karaw te damaa dafa dafa mel ni fi ne loolu tam ci am saafara fi mu ci ci ci sikkim ak waaw wàllu sikkim nag moom comme ni ngeen gisee emballage bi képp ki xamante ni rek bëgg nga barbe bëgg nga sa sa karaw karaw sikkin bi daal day jóg bu baax développé bu baax tout d'abord dafa am shampoing bi xamante ni spécialement pour barbe la mooy shampoing bu ndaw bii ngeen di gis shampoing bii ak lii ñooy am gamme la bu la jaayee huile bi joxe barbe carrément dañ lay may shampoing bi shampoing bi dañ koy utiliser deux à trois fois ci biir traitement képp ku bëgg sa barbe sëq ni mu ko bëggee ni mu ko bëggee bi un mois la lii ay huile lañ ko liggéey brut ak huile de menthe à à chaud moo nekk nii vrai huile vrai vrai vrai shampoing bii ndax karaw pour poor yi ubbeeku barbe bi karaw bi mën a ñëw mën a pousser normal shampoing bii nga koy raxase pour mu ubbi ko huile nga ciy diw mu sëq kon ñaam ñaar la am nañ ci nag format bi nga xamante ni mooy bu mag bi bii 100 ml la bii cinquante ml kon moo gën a bëgg mu gën a bari gën a sëkk bu gën a mag ngay jël bii mooy plus fort bii mooy moins fort kon nag am na kuy pour koy commander am na cent ml am na cinquante m lii mooy double bii mais comme ci mati doon boo ko jëndee daañu la may shampoing bi nga xamante ni mu lay àndal mm-hmm. shampoing nag amul feneen ci dakaar <laughs> bii depuis li ngay génne moom daa mel ni amul feneen li ngay génne univers bio la daal kon am leneen rek nañ ko génne bu ànd ak pour barbe ku ko bëgg dëgg dëgg ndax ndax xale yi ndax léegi xale yu góor yi mhm. dañu am statut ci seen yaram dañu toppatoo seen yaram mhm. xam te day am ay picc am ay ndoxum siti am ay mhm. dañu dépassé yooyu bu jigéen bu njëkk ba jigéen moo daan defar yaramam mais léegi góor ñi dañu toppatoo seen yaram xale yu góor yi dañu toppatoo seen ay barbe defar seen sikkim defar seen moustache defar seen ay o te bëgguñu ay picc bëgguñu wattu ci ay coiffeur ba pare ay picc di génne genre yooyu bëgg dañu bëgg itam shampoing yi xam te ne moom lañu utiliser seen barbe ndax shampoing dafa bëri façon mm-hmm. comme ku mel ne shampoing bii ndax da nga laaj ci affaire karaw mm-hmm. bu dee nag pour bopp teg mm-hmm. bopp bu bëgg mu sëq comme ñoo xale góor yi watu yi rafet nañuy watu ndax xale góor yi ku leen xool xam ni ñoom léegi ay dégradé yu baax la ñuy watu mhm. kanam gi dañ koy sëq bordure kanam gi day ñëw normal ay ay gascogne ak yooyu noonu voilà waaw mais parce seen bëgg-bëgg la topp bien-être dafa baax mhm. ci jaamu yàlla la bokk nit mhm. toppatoo sa bopp ci jaamu yàlla la bokk lekk bu baax ci jaamu yàlla la bokk am esthétique ci sa yaram itam ci jaamu yàlla la bokk ab sëriñam ñëpp ci yam da ngay toppatoo sa yaram toppatoo sa karaw karaw dañ koy toppatoo karaw dañ koy karaw dañ koy dundal kooru nit dafa bokk ci li habillé nit lii shampoing la moom it macha allah 500 ml waaw bii shampoing la bi xam te ni moom ngay raxasee sa karaw bopp mhm. bépp góor bépp jigéen bi xam te ni da nga bëgg sa karaw sëkk mhm. shampoing booy raxasee pour karaw gi moo nekk nii bi 500 ml la mhm. dafa bëri shampoing bu bu sakkan la diw bii koy booleel pot baa ngi nii macha allah trois pot bii ma boo dee xool dina toll ci 300 ml 300 ml presque day ñëw ci xaaju xaaj geen wàll libar diw bii ti macha allah xet bu neex la am c'est bien fait c'est bien préparé allah gis nga nga odeur bi. Mm. ay plante rek lay xeeñ. macha allah mi ngi nii dañ koy laar rek gis ko xam ne ñu man c'est bien fait. li yëpp rek ci biir bio parce que sëriñ dépassé ñu tey jii ay ñaanal ay njulli ñaanal ay mbër. Mm-hmm. ñaanal kuy kuy kuy def examen. Mm-hmm. waaw c'est bien. Mm-hmm. ci la bokk de sëriñ lépp la war a mën. ndax ñu nit mën noo jàng garab. xam plante yi. xam xob yi. xam sèvres yi xam écorce yi xam réew xam racines yi ñun ñoo ko jàng xam garab ban garab mooy maye karaw xam ban garab mooy faj ndoxum siti xam ban garab mooy faj hémorroïde mhm. te loolu yëpp dafa bokk ci biir liggéey bi te ñu nit ñu ñu wax ci côté esthétique u nit ñun ko xool suñu esthétique xam ne ñu nit defar nañ suñu yaram xam ni defar nañ suñu liggéey on fait des bons emballages pots yi nga xam ni ñun ko ñu ci ko ndax am na tam li ñu jógee ba Nigéria mhm. fii may waxee yow am naa ci commande 2000 pots. Hmm. ñoo war a dans 3 jours. pour diw bopp bi ak shampoing. ab gabonais léegi la fi génne kat maa ngi toog. yaa ko man maay seede di jóge ci àddina ñëw di ci commande am ñoom dañ koy jënd sax di ko jaayaat en gros. 2000 pots laa ci am commande fu may waxee yow nii 2000 pots. Hmm. ci li lii ma wane rek. ok shampoing bar bi fu ne la nit di jóge Côte d'Ivoire Gabon. ñu nekk France Amérique amul fu ñu ko dul commandé. fépp lay dem dans le monde. man bëggatuma sax nit ku taxaw naan dama am problème bu karaw fii ci Sénégal bëggatuma ko. dëgg dëgg te seen non non non non même boo amoon ndoxum siti ba sa leel di nga am leel ndax problème karaw bi mm-hmm. nee naa la ku leel. Mm-hmm. góor gu leel jigéen bu am problème mu karaw góor gu am problème mu barbe. Mm-hmm. foo bëgg karaw bi sëq sa dënn am nañu te ni karaw dënn lañ bëgg. bu ngeen xeebal seen bëgg-bëgg. wallaay ndeysaan. kon képp ku fi ñëw wax sa soxla ni ko bëggee. daañu la ko toppatoo ni mu waree ci kàttanu suñu borom. incha allah acca yaa ngi lu lu lu lu lu doy waar lu am solo waaye xam naa ne fi mu ne li waxtu bi xot nañu waaye def mel ni am na loo mujj ak yëkkatiwaat léegi bëgg ko génnee bii moom ci lu mu jëm ba noppi fi mu ne sëñ bi ñu war a joxal suñu jotaay bi. waaw bii boo ko dee xool. moom it uyil la rek yi nga xamante ni comme dañ wax ci wàllu karaw rek. ndax fii fi produit dafa bëri du ñu mën a génne lépp. mais man man loolu daf maa jaaxal parce que li ma bëggoon laaj jotaay ñu utaat boo xamante ni uniquement ci produit leen lu ci ne la muy saafara la muy yo doomu aadama bi. ci mhm. loolu lañ koy mujj a bëgg a tënk. Mhm. ngir mën a gën a wane. Mhm. univers bio taxawaay bi nga xamante am na ko ci biir réew mi. waaye a waxtu bi nga ñu. lan nga ñuy dolli loo xam ne moom la ñuy jeexalee jotaayu tey bi boo nekk waale ko ak kaddu yi soññee yi nga xam ne yaa ngi koy soññaat ñi nga xam ne ñu ngi lay setaan ci à travers euh, Dakar People. Mm-hmm. ñu tënk ko foofu ba beneen yoon daal fi mu toll nii ndax xam naa li ma bëgg a laaj dëgg daal mënu ma koo laaj man li may gis ci biir univers bi xaju xaju xaju ci ci ci ci détail. waaw Dakar People moom. ñoo ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam. Mm-hmm. di ko ñaanal site internet yi ci Sénégal yëpp. ñun tàllal nañ suñu loxo. Mm-hmm. jox nañu ñëpp loxo partenariat jox na ñu lépp loxo collaborateur. Mhm. ñoo gi ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. def fi salaam. suñu liggéey bi comme ni nga ko waxee ca tàmbali ba yàgg nañ ci. ñun mhm. wutatuñu départ. ñun arrivé rek la ñu ñaan. ñun bu doon course. Mhm. doon course de fond. ñun dépassé nañ course de fond. waaw ñun fu mu toll nii ñoom coursetuñu kenn. ku xool liggéey bii xam ne Serigne Bara amul jot. man ku ma xam dëgg xam ni awma ma jot. maa ngi ci sama yitte maa ngi ci Sénégal mm-hmm. Sénégal ma ñor ak seen feebar seen bëgg-bëgg soxla sénégalais soxla sénégalais mm-hmm. sénégalais képp ku ci am sa soxla wala nga am sa jafe-jafe mm-hmm. je suis accessible à tout le monde ñii nag ku ko bëgg nag du danga may woo rek war maa mën a jot dafa am protocole teg nañ fi secrétaire boo leen ma woowee sama secrétaire ngeen di jot boo leen ko jotee moom dañ leen wax nan ngeen war a mën def ba gis ma wala nan ngeen mën a mën a def ba dégg ma mm-hmm. képp ku collaboré ak secrétaire bi ca lam la wax mm-hmm. boo ci tënkoo du yàgg dara di nga ma dégg wala di ma gis ak foo mën a nekk ci àddina waaye nag sénégalais yi dañuy bëgg rek euh, jënd benn affaire wala bëgg jënd benn affaire mel na ñoom moom suñu baara wala ñoo ko a tënk ci dara mm-hmm. man nag damay bañ ko moom moom suñu bàmba rek a moom moom <laughs> maa ngi sama liggéey addiya laay daw ak dépense ku dul sëriñ Tuubaa moom mooma man ku dul sëñ Tuubaa rek attanoo ma. Mhm. man Cheikhul Khadim rek ma attan. ak maa ngi tuub ci kàddu yooyu baax. Mhm. jërë ngeen jëf. sant ko bu baax a baax la ñuy def gërëm ko waaye ñaanalaat ko bu baax a baax. suñu borom dolli ko taxawu dina dëgëral taxawaayam. dina wéral ay cëram ba mbooleem naal yi nga xam ne naalal na ko askan wi naalal ko mbooleem sénégalais ak kudul sénégalais ndax nee naa leen léegi fii ñu toog di def jotaay bi laata ñuy tàmbali ak gabonais bu ànd ak soxnaam xaw mas ndaawam ñoo fi mujj génne léegi te loolee nit ñaa ngi toog di ñu seet duñ ñu bàyyi ñuy wax naka su dul noonu kon li muy wax di ko wane tam ci ay jumtukaayam nit ñaa ngi jógee feneen fu dul Sénégal di ñëw di ko fi jënd si te ñu koy jënd si duñu ay sénégalais kon nag bu ñu amee lu mel ni ci biir réew mi ci biir Sénégal koo xam ne sénégalais la comme ñun bëggut a mel ni kenn te ku jóg bëgg mel ni moom kon li mu yor te muy jënd askan wi nañ fexe ba gaaw ci fexe cee jot te mën cee jënd suñu bopp loolu moom daanaka moom ci fulla la bokk ci fayda la bokk waaye ci gëm sa bopp gëm sa cosaan ak sa aada fi la bokk kon loolu ñoo ci sonn suñu bopp di ci sonn képp koo xamante ne mi ngi seetaan macha allah rabbi kon sëñ Lamine dig daje ci yeneen jotaay am na ci yoo xam ne feeñagul ci wàllu lasaar ci wàllu ñu dugg ca beneen bureau mbokkut ak bii ndax bii la ñu wane tey univers bio la ñu wane tey waaye bëgg naa beneen jotaay boo xam ne leneen ngeen gis kaddu gu mujj gi lu muy doon ci jotaay bi ñu door ko jël. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam sant naa yàlla julli seen bi. dig daje ci beneen jotaay ci biir Dakar People ci seen jotaayu xam-xam jërë ngeen jëf wasalaam. ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi